Je ñu toujours les xew hmm. parce que c'est inconcevable que match sport du moujé lu mel hmm. euh, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire et puis hmm. il dafa nekkoon loo xamante ne lu particulier la parce que c'est un stade taxoon na bañ déclaré ma personne persona non grata on s'est battu pour mettre à la disposition lu tax ñu mën di def compétition mais y a aussi d'autres disciplines il y a le football professionnel le football mm-hmm. amateur mm-hmm. Il n'y y a pas de raison rien ne peut expliquer cette violence là C'est mu nekk lu d'ailleurs euh, moo autorité en charge la sécurité mm-hmm. je pense que les mesures vont tomber on ne peut plus continuer comme ça di di xeex di xuloo muy sport bi yëpp du nawetaan kese muy mm-hmm. làmb ay tout ça là mm-hmm. il faut que nit ñi xam on peut rien développer dans dans la violence mm-hmm. euh, donc dafa nek lo xamante ni ñun ñep ñu war retrousser les mains condamner ko fermement ce qui doit être prise ko euh, nga xamné ay décisions yi ñu wara jël yu yu sanctionner des mesures aussi dissuasives nit ñi ñun ñep ñu jël ko ce qu'on devait nous juguler cette violence là qui est en train en réalité de plomber tous les efforts des responsables de clubs de sports, mais aussi les efforts de l'État du Sénégal parce que plus d'un milliard de francs pour accompagner la ville de Rufisque infrastructure bi infrastructure ville Rufisque mais pour Dom Rufisque là la ak Rufisque a pas beaucoup, donc ça c'est on le condamne fermement et puis ni autorité yi dinañu ci taxaw ni liñ ci war a def dinañu ko ci def parce que ça ça peut pas continuer. mais monsieur le ministre euh, boo waxee euh, que il faut des des des mesures ak yooyu on on peut s'attendre à quoi comme mesure concrètement. ci ci yan tànk nga ngeen ci nekk est-ce que. Euh, xam nga xam nga loo gis nag dafa échelonné déjà y a des mesures administratives y a des mesures yoo xamante ne c'est les ñi entité bi doon organiser moo koy organiser mais li xew mooy les nawetaan vont être arrêté mhm. loolu moom. C'est la première Sur mesure. toute l'étendue du territoire euh, De toute façon, Rufisque, tout ça là, fait pour violence, des hommes de arrêter Navetan. Ils arrêter. C'est pas que les Navetan, toutes les disciplines sportives, des hommes violence, il faut qu'on arrête ça. parce que mënul continuer déjà ñun ñu ngi ci ñu ngi ci xeex boo xamante ne yéen constaté ko en tant que journaliste sportif fu nek ñu ngi naan am na déficit am na leneen et puis suñ demee ba am ay nit ñu ci ñàkk seen bakkan muy am jafe-jafe ça c'est autre chose loo xamante ne nekkatul ci wàllu sport moo tax bu question ministère des sports parce que le ministre des sports est là je suis maa ngi ciy wax mais eh, eh, affaire bi day dem ba ëpp loo xamante ne nekkatul benn domaine parce que yenn yi c'est c'est des actes de violence yoo xamante ne il faut il faut régler ça définitivement il faut que chacun prenne ses responsabilités. est-ce que ñuy wax ñi ñu ànd ak dal dellu parce que sport amul xuloo amul xeex. monsieur le ministre est-ce que ci xibaar yi nga jot amagum actuellement est-ce que am lan nga lan amagum ci ci sur le Fofu à Ngalandou Diouf Yo mi nekk ci. Euh, euh, ci état bi xëy na am ci euh, xibaar ñu. koy suivre maa suivre am na loo xamante ne guma cee àddu. Mm-hmm. mais tey bu ngeen gisee image di ngeen lañu fa defoon yàq nañu ko. Hmm. Hmm. waaw li ci des nag comme gën na diis il faut ñu xaar ba recouper toutes les informations ñu ngi en relation avec les autorités locales et administratives yi fa nekk pour mën a évaluer la situation. alors en, en tout cas li xew regrettable. Ouais. en français monsieur le ministre vous avez sûrement suivi un peu les images de ce qui s'est passé au stade. de